di am uh, mbégte ci di ñëwaat fii nag tey jii ngir di tëj li nga xam ne moom lañ doon liggéey ci ay bis yu ñu weesu yëpp ci ndigalul Cheikh mun taxa ñu joxoon ko sëriñ Ahmadou Makhtar mi nga xamante ne bii moo jiite mboolem kër Cheikh Mamadou Moustapha ak mboolem kër Cheikh Mamadou Lamine Bara mu àndoon ko ak mboolem yoonu murid wépp muy bokk yi muy taalibe yi muy cheikh si kenn desut liggéey boobu doonoon centenaire bi nga xamante ne bi moom lañ doon defal sëriñ bi gannaaw téeméeri at yi nga xam ne ñibbisi na fii ci Touba ñu ne ma nag téeméeri at ab lim la boo xam ne buñ ci àggee war nañoo xool dénkaan yi nga xam ne moom moom lañu fi sëriñ bàyyi woon na ñun téeméeri at yooyu yenn jéegoo lañ ci seqi kon loolu moo sababoon ñu tëral ay waxtaan yoo xam ne waxtaan yu bari la woon defe ko Touba defee ko Louga defe ko Njaareem defe ko Ndakaaru ñëw tëj si waate ko Touba Cheikhoul ak ay bokk yu baax a baax fi ma toog nii rek gis ngeen Serigne Cheikh Thioro doon jël kàddu léegi ak Serigne Sidi Abdou Aziz te lépp ñu ko def jiitul Serigne Cheikh Abdou Aziz mi nga xamante ni moom moo jiitu woon comité bi ànd ko ak mboolem bokk yëpp te kenn ku ci nekk doon ñooy xare doon jàmbaar mook si Ousmane ñu nekkoon coordinateur yi tey jii dem nañ ba ci cëppandaw gi fii lañ ko tijjee woon ci Touba defoon ay waxtaan yu am solo waxtaan yëpp ñu defoon ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha jóge ca waxtaan ci li nga xamante ne mooy bennoog jullit yi jóge ca waxtaan li nga xam ne mooy sàkk lu ci lislaam ak naka la ko sëriñ bi gise woon ci sàkk ci yoonu Mouride ak naka la sëriñ bi gise woon defoon li nga xam ne bilan bilan lañ ko mën a tudde eh, ci yoonu Mouride li nga xam ne jëf na ko ci jàng ak ci jàngale yoonu mën li nga xam ne jëf na ko ci wàllu koom jéego yi nga xam ne dëkk bi nga xam ne mooy Tuubaa ñu nekk fi seqi na ko kon loolu lépp waxtaan lañ ko waxtaan yooyu sëriñ Cheikh wax na ko léegi lépp dañ koy tënk mu soobee yàlla def ko ci ay téere bàyyi ko fi mu nekk bilan du siècle bi nga xamante ni moom la ñu génn ginnaaw sëriñ bi waaye lañ ci jiitaloon nag moo di ne waxtaan sëriñ bi ni nga xam ne noonu la nekk woon njaareem waxtaan daal itam li nga xam ne moom la ñu dénk bàyyil ko fi tam defoon ko ci fan yi ak juróom benn kon loolu mooy li nga xam ne moo nekkoon ci bis bi ñu seqoon ko nag ak mboolem réew mi yëpp du ma ne rek yor mbir dong lañ ko seqaloon ndax kenn ku ne gis na bañ demee Ndakaaru mboolem torox yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi ni nga xam ne takkoon ni wuy suñu nga xam noonu la autorité gouvernementale takkoon ni wuy suñu ñi nga xam ne noonu la aussi ñi nekk ci kujj gi takkoon wuy suñu ñi nga xam ne ñooy kilifa aada diin takkoon wuy suñu ñi nga xam ne aussi mooy homme d'affaires bi nga xam ne rek Sénégal gépp ñoom ñoo fa ñoo ñoom ñoo fa dajawoon cant yi def nañ ko léegi sëñ Ousmane def na ko sëriñ Cheikh def na ko ki ma ci jaaral rek ci aw turam mu nga xam ne moom moom lépp mu di Cheikh moom Muntaxa nga xam ne kenn mënu koo fay ndax lii buñ ko ci amee gannaaw yàlla jëmam moo tax ndax lépp lu ci war moom moo ko def moom moo joxe ndigal yi moom moo wax taalibe yi ba nga xam ne bis yi mel na noo xam ne ñëpp xam nañ ne bis bis bis bu ni mel day du ma ne mus am wante yombul li ñu wax léegi ne njaareem gis nañ ne mbooloo mu toll noona musu faa daje te keroog daje nañ fa kon loolu lépp nag bu amee li gannaaw yàlla baaxu Cheikh Mouhamadou Mountakha la ak itam nag takk yi nga xam ne ñi mu dënkoon takku nañ ko ak pas-pas bi nga xamante ne bii eh, ñu ko ci doon doxalaale loolu moo sabab ñuy sant mboolem réew mi yëpp nag di gërëm mboolem réew mi yëpp nag di leen xamal ne lu ñu doon def mboolem diine gi lañ ko doon defal ndax ndamul lislaam la du ndamul rek ñun ñi nga xam ne ñu ñoo ko ñun ñoo ko sequl waaye li ci ëpp solo mooy li nga xam ne moom lañ ci war a jàngate mooy lan sëñ bi ñibbisi na boobaak léegi bare téeméeri at xayma nañ li nga xam ne jëf nañ ko fi gis nañ ne kat jëf yi seq nañ fi ay jéego yoo xam ne jéego yu rëy la gas nañ fi raay bi tabax nañ fi jumaa ji Touba dem na ba tey ji nekk département Mbacké nekk premier département du Sénégal wàllu koom kenn ku ne gis na fi nga xamante foofu la mur gi toll wàllu jàng ak jàngale gis ngeen université bi daanaka doon ci sëkk ay junni junni junni lu ëpp ñaari junni daara nekk ci biir euh, dëkk bi li nga xam ne moo fi nekk ci ay jumaa kenn kenn kenn xamul nu mu toll kon day mel ne fànn goo jël rek am na si am na jéeg yoo xam ne seex nañ ko ci waaye loolu dafa doyut dañ cee war a rek sukkandiku ngir ci siècle bii di ñëw ndax loolu bokkoon na ci li nga xam ne moom la ñu waxoon moo di bu ñu xaymaa li ñu weesu loolu nag nañu niital li nga xam ne mi ngi suñ kanam kon ñu ñëpp nañu jaajuwaat takku xam ne liggéey bi day sog a tàmbali beneen xarnu moo tàmbali kon li ñu defoon duñ ko fàtte de waaye nañ ko xeeb fexe ba xarnu bii di ñëw bu ko suñuy sët toogee di xayma def loo xamante ne bii moo ëpp li nga xamante ne bii ñun defoon nañ ko ndax noonu yi noonu la mbir yi war di war di doxe kon ñun ñëpp nañu jaaju feddali suñu ay laxasaay xam ne ñu ngi soog dugg tool bi jàpp ne tàmbalee jàpp ne defaguñu dara kon li nga xam ne jot nañu koo def. bu ñu ko yéem bu mu rëy ci suñu ay bëtt ndax Sëñ Tuubaa lépp lu waay defar rek li mu yeyoo ëpp na loola da ngay def rek ba fa sa kàttan yem da ngay des àggalee ko sa yéene waaye nag li ñu weesu am na solo jëf ji rëy na ndam yi bari na waaye nag njàpp ne ndam ñi nga xam ne moo gën a rëy sax ak see gut kon tàmbale gu ñu dara kon man foofu laay woo mboole mbokk taalibe yi foofu laay woo mboole mbokk jullit ñun ñëpp ñu gën a takku gën a gën a gën a doon benn gën a boole suñu bopp tënku ci li nga xam ne mooy li sëriñ bi bëgg ci ñun ñun ñëpp ñu moo si ànd ñu maa si ànd topp ci ginnaaw gi nga xam ne moom moo ko fi nekkal di Cheikh Mourou Mountakha te lépp loo xam ne digal ko ñu di ca xëy ba jant bi so lépp lu mu bëgg itam ñu ko ko ndax loolu rek mooy suñu njariñ te bu ñu ko defee fi nga xam ne fa lañ bëgg yoon dem fa mu nekk sagub lislaam gépp nekk namul lislaam incha allah rabbi danañ fa àgg kon ñu ngi sant ñëpp ñu ngi ngërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf